bismillahi irrahmani irrahim barke borom tuuba bismil xadimi ma way fii téere jaalibatu ndem laq naa ngor danaa jox jaalibatu bismil xadimi ma way fii téere jaalibatu ndem laq naa ngor danaa jox jaalibatu jaaraama jaajëf wa shukram merci jaajëfati yow waaju tedd ji tey ab sang jaalibatu Ya gaaw ci tarbiya ab jam bam ni ko ci yoon nga ko bam daw nga far yëggal ko jalibatu ya setu ko dañu naa kii dootu jub abadan nga rof ko ak njub ba muy waaraate jalibatu ya faw xam mboolem lu lislaam wax ne war na ku sakantu ma ya warul yow bur bi jalibatu wajal kitabati ya wajal bi ya jabir ñom ñaari wajali ñay sa sere jalibatu wajal kitaabati yaak wajal bihi ya ca biir ñoom ñaari wajal yi ñooy saa séere jaalibatuun defar nga saa jëmmu booleeg def ci luñ ba noppi won ma yu dul siiw mukk jaalibatu xabdul juxaane wa cheikh jóob dundu nan li ma wax ak sax ñu dul te yaay saa séere jaalibatuun amoo morom mukk cib yar bamba seede na ma ngir moo la tànn nga doon mahdi yu ku lay durus duñ ko bindal ab safaan ci jëfam yaa gaaw ci may jaam wilaaya barke jaalibatuum yaa gaaw ci wan jaam borom tuubaa lu dul ci nelaw am naa ci firnde te xam naa xam nga jaalibatuum yaa gaaw ci jox ku da taqoo kës fu muy gisi mbóot yum na ma ngir sa dooley minde jaalibatuum gis naa la yaa taaru jekkub coltali si kawar tataaru jib leer ba far xeereeru jaalibatuum gis naa lay ataaru jekkuk coltali si kawar tataari jib leer ba far xeereeru jaalibatu yow lu ne ngay dikke sab waay wante wii melokaan ci laa la mujje gisee fi dëhri jaalibatu yow mag nga cheyxul murabbi far korom bu di wéy yaa fawxa cheyxul muraqi yaa di jaalibatu yaa nga di wërsëg di jañ ay ay di fekk lori nit ak lori jinneeg ñu dul fawu jaalibatu te yaay njariñ luñ fetal lor ak warak lu ni mel ku weddi lii na la yow mii di jaalibatu pambaani duuna xadan moo wax ni duuna jawan wala xërar doy dan fii téere jaalibatu walaysa fiika balan walaysa fiika darar yaay ñoddi ak texe fit daaray ni jaalibatu fii lay tëjee muhammad zëy badar sama te ñaan murit yépp am ndam jaalibatu fiilay tëjee man muhammad sey badar sama woy day ñaan murid yépp am ndam barke jaalibatu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala almursalina walhamdu lillahi rabbil alamin addiye borom tuuba